إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المقلدي ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala ñi ngi seede na yàlla dong moo yeyoo ñu koy jaamu di seede na suñu boroom boobu mooy lim ni waccu ñun jaamam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo yeyoo jàngale naka la ñuy jaamoo yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko topp ba ila yawmi diin mbokk suñu borom ñi ngi koy sant mooy toog ba mu soob ko mu yónni ay ngelawam ngir ñu déggal ñu ci yërmandeem mu wàcceel ñu am ndox jële ko kaw asamaan déggal ci suñuy dëkk nandal ci ay mbindaa fanam ñu ngi seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom mooy ki nga xam ne moo am kattan ci lu mën a doon borom boobu subhanahu wa taala gis nañu ni mi ngi ñuy woo di ñu wan lenn ci ay kawtiifam mu ne xanaa yéen nit ñi seet luwu leen ni yàlla day moom mooy jëñ ñiir yi ci kaw asamaan di ka boole ba mu nekk aw xiin nga daal di gis taw ba di génn ci diggante ya mu wàcce jële kaw asamaan ci loo xam ne ay montagne yi ndoxi glace la sotti ko fu ko neex ci ay jaamam dana ànd ak i melax ci dënnu yoo xam ne melax ya xaw naa yóbbu sax bëti ña koy xool mbokk ki mooy suñu borom moom mooy ki nga xam ne moo commandé jant bi nga xam ne ab jaamam la heure bu tàngalee li nga xam ne mooy géej gi ndox ya ca nekkoon daa ji naaw jëm kaw asamaan suñu borom daje na ko ca kaw boole ko ay ngelawam ñu def ko mu nekk ay bloc yoo xam ne bloc yi glace la gannaaw ma suñu borom wëlbati ko tas ko boole ko ngelawam ba mu sotti laat ñu ko ñun muy ay ndox doonte ne bu ko neexoon wàcce la nga xam ne mooy donji glace suñu kaw laajal suñu maam yi fekke woon li ñuy tuddee taw ëgg ba te mooy taw boo xam ne dafa àndoon ak ay donji glace lu yàggul dara fii ci Australie yàlla wàcc na fa benn taw boo xam ne day sotti ay donji glace yu toll ne ay balu tënk rey fa ak jur bu dul jeex loolee mbokk kon ci kattanam jalla waala loolee mu ne min jibaali min barat moo koy wëlbatikuwaat tasaare ko ba ndox mi yegsi ci ñun ànd ak la nga xam ne mooy benn température bu ñu yem bu ñu mën a jël man koo naan muy ndox mu neex borom boobu subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne bu mboolem bindaa fonam yi daje woon mënuñoo wàcc ab taw mënuñoo peeg ab taw ñaata lay doon borom boobu moo koy jël tasaare nandal ci la nga xam ne mooy nit ña nandal ca bàyyuma ya picc yey naan xatta xorondoom ña gën a suufe ñoom ñépp ndox moomu ca la ci seen dundu aju borom bi subhanahu wa taala mu ni def naa ndox muy dundal lum mën a doon jamonoy suleyman alayhi salaam toog nañ jamono tawul ñu daal di génn bi ñu génnee dem di ñaani taw Suleymaan gis romb benn këru xorondoom bu ñu romb ka nga xam ne mooy seen njiit la daal di jaaxaan naan ay yàlla ñu nit day ay mbindaafan la ñu gis ay mbindaafan ay yàlla yal na nga wàcc taw bu ñu nandal Suleymaan alayhi salaam ne gaa yi mu àndaloon wax leen amin ca dëpp mooy yàlla dana wàcce taw ca mooy keroog yàlla da leen a wàcceel taw mbokk taw boobu ñépp soxloo ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ay yow doomu aadama xanaa xooloo lekk gi ngay lekk ba tax nga mën a dund suñu borom yàlla mu ne maa wàcce ndox aw wàccin loolee mbokk nga xam ne muy xiin yooyu ay milliards la ci ay midd pidd doo yoo xam ne bu ko yàlla bàyyi woon mu daanu suñu kaw waxumaa doomu aadama waaye étage ak lu mu mën a doon dootul dox ci kaw suuf waaye suñu borom mu ne maa ko wàcce aw wàccin gannaaw ba maa jox or bu suuf mu génneel leen ay gàncax ma may leen ci façon pepp bu nekk may leen ci ay raisin may leen ci ay légumes may leen ci olive may leen ci tàndarma may leen ci ay jardin yu dundaloo ay yéen doomu aadama ndax yéen a ngi xool loolu di bàyyi loolu amul lu gën a rafet mbokk taw boo xam ne mi ngi wàcc di bégal doomu aadama yi nga gis xale yi di génn nekk di sangu loolee nekk kàttanu borom bi subhanahu wa taala borom boobu nga xam ne moo koy commandé tawloo ko ci fu ko neex tey ñun waa Dakar ñu ngi nii soxla taw bëri ci démboo njaay Louga taw baa nga fa sattee ko ba jaaxal leen bal da ngay gis ñoo xam ne ñu siq ay tool benn xiin ñu tawal tool bi même fees tool yi suuf ci moom du ñu am dara lii lépp mbokk mi ngi amee ci ordre ndigal yooyu ba woo ci sunu borom subhanahu wa taala mbokk dox moomu nga xam ni lu bëri ci doomu aadama yi xamuñu valeur am rawatina lu bëri ci ndawi xëy nga xam ne ba nga juddoo ba tey da ngaa fekk ndox di wala gaan na am suñu borom yàlla mi ngi ci mosol ju ci yéen wala Dakar ca la nga xam ne mooy ñàkk ndox bi waaye mbokk ndox bala nga ko waroon a xam nga ñàkk ko amoon nañ benn tubaab bu ñëwoon fii ah nekkoon ci jàkka ji ay jamono ñu ko tudd Abdul Malik mu ne moom bi mu ñëwee Sénégal day xam valeur ndox yàlla daf koo natt mu dem Bakel nee na ma gis fa benn village boo xam ne dëkk bi yépp benn teen lañu yaakaar jigéen ñi dañu fay ñëw def fay heure ku am benn paan jàpp nga ne am na xéewal mu ne ma xool ñun en France da ngay dugg sa bassin boo xam ne deux cent cinquante litres la nga ñëw dugg paccax paccax ba mu neex la bés benn bu too lépp dem mosumaa xam valeur ndox lu dul bi mu ñëwee Sénégal waaye mbokk ndox mi ngi noonu suñu borom yàlla ci mbaaxam moo ñu ko wàcceel kaw asamaan borom bi ne xool leen ndox bi ngeen di naan ndax yéen a ko jële ca kaw niir yi am man maa ko wàccee su ma nee xool def ko mu nga xat comme ndoxum géej xanaa du ngeen ma sant mbokk nan la ñuy sante yàlla seen bàyyi day xam nañu li ñuy sante waa SDE waa SDE yooyu nga xam ne ñoo jël ab raakool jële ko kër Momar Sarr indi la ko ci kër gi chaque deux mois ñu indi la benn facture mën na nekk dix mille cent mille wala lu ëpp loolee amma suñu borom yàlla moom ay facture am lan lañ ko war a fay mbokk nga xam ne ndox xéewal la ko bawoo ci yàlla boo songoo ba pare santal yàlla boo naanee santal yàlla boo fóotee sangal santal yàlla boo tabaxee tam tabax santal yàlla te xam ne xiiwal la boo xam ne yàlla dong mooy ka nga xam ne moo ko mën a def mbokk bi lenn ci jaami yàlla yi weddee ak déedéet bi am na suñu borom yàlla ci ndox la leen yeeyee mu ne ma ñoom nit ñi xanaa gisuñu ne suuf saa ngi nii woo koŋ daal di dee man yàlla ma wàcce ndox ndox mi ñëw daal di koy yëngal gàncax yépp daal di génn ngeen am ci meññeent bi ngeen di lekkal ka nga xam ne moo dekkal suuf boobee heure bu ko neexee mooy dekkal ñi dee yoon mbokk loolu mooy ndox mooy la nga xam ne moom la suñu borom def moo fi téye ñiy dund fu ndox jeex dund jeex fa tey jii boo xoolee scientifique yi nga xam ne ñooy wër planète yi nekk ci wër jant bi pour ñu xool ndax am na fuñ mënta dëkk yi lan la ñuy seet dëgg-dëgg mooy ndax am na fu am ndox fu ñu gis ne am na ndox rek dañuy daal di xam ne fii ay lindaafan mas na fee am waaye bépp fu ñu xool ba xam ne fii amul ndox dañuy daal di xam ni fii dara mu fi dund mbokk heure bu ñaari soxla amee rek ndox daa am doomu aadama bu ndox amul soxlam àdduna yépp mooy ndox doomu aadama mën ngaa yegg ba joxe sa alal joxe say mbubb ngir am kaasu ndox boo naan loolu ku nekk ci ñun war a góorgóorlu ngallaawaay di bàyyi xel loolu waaye di ca sant yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne xanaa xoolu leen su ma xëyoon rek seen ndox bi ngeen yor yépp mag ñii sol ko mu dugg ko ci biir suuf ana kan mooy mën a wëlbati ko waat di leen di indil ndox boobi ca mbokk yàlla yemul ci bindal ñu ndox wàcceel ñu ndox waaye yàlla moo ñu dencal ndox yéen a ngi dégg responsable ndox ñi di wax ne am na beneen centrale bu ñu génnee ci kër Momar Sarr waaw gaa yi géegu kër Momar Sarr ndax waa Israël ñoo ko gas ndax américain yi ñoo ko gas déedéet dañoo dunde fekk suñu maam yi seen maamaat yi fekk fi yàlla bàyyi fi ay dex yàlla bàyyi fi ay déeg yoo xam ne nii ca lay génte ndox mi ci ci ci kaw suuf bal aka bari tey bi ndox mi ko fee kër yu bari am ay pom kan moo leen dencal ndox moomee ba ñu mën a jël pompe yooyu di génne ay centaine de mètres cubes ci ndox mbokk koy mu kooku mooy suñu borom nee na salaknaahu yanaabi'a fil ard maa wàcc ndax kaw asamaan def ko ay tuyaux yu tasaaroo ci biir suuf doomu aadama yi su ngeen jàppee gas ma may leen ndox mi ngeen naan ndox ngoogu di kawtéef ci kawtéefu yàlla yi amul benn forme bu muy jël foo ko dugal mu mel na moom ndox mi ngi nii amul benn cafka ndox amul benn cafka ndox mi ngi nii amul benn couleur ndox mi ngi nii amul benn xet di jagleel boo xam ne yàlla jagleel na ko ndox mi ngi nii moom dong la doomu aadama munta ñàkk ci kaw suuf amul lu doomu aadama di dugal ci biiram lu dul ndox moo ko gën moo mën a loo moom la kenn dara mënul remplacé ci kattuma borom bi subhanahu wa taala looloo tax ba soo delloo ci téeram yàlla bi lu ëpp juróom benn fukki aaya suñu borom mi ngi ciy tudd ndox moomee ngiree doomu aadama yi bàyyi ci xel man cee sant suñu borom borom boobu mbokk fi mu jaar ak ñun ci ndox mooy moo ko nattale heure bu manqué mbay ma yàqu na heure bu ëppee dëkk ba yàqu na temps ya yàqu nañu suñu borom moo koy wàcce ci kem boo xam ne nii kem ba ko soob loolu nag mbokk daf ñoo waral heure boo xamee ni nii rawatina ñu dugg ci jamonoy nawet nit ñi yeesalaat seenu tuub jëm ci yàlla yeesalaat seenu toroxlu jëm ci yàlla te xam ne kat ay bakkaar yi ñu nekke mën nañoo jural ñaari catastrophe benn bi mooy yàlla téye ab tawam mbokk loolu musiba la ñaareel ba yàlla sotti ab tawam ci loo xam ne ni ëpp na la dayoo loolu yi gis ngeen lu jege matagul fukki at ci gannaaw ana ñaati milliers ou bien des centaines de milliers ci ay kër yoo xam ne demal ñetti mbaar demal jàmm gën demal feneen jaaral fu la neex ci dëkk Sénégal yi ñoo xam ne seen i kër abandonné nañ ko seen i tool yàqu na ngir ndox boo xam ne dafa bari loolu tax ba ci jamono ju yàggul dañ daan def heure bu nawet jotee ñu arrêté lépp loo xam ne ay tëgg la ay làmba la ay yu kenn xamul loolee ba nawet bi passé amma doomu aadama yi seeni xol day gën a wow ba léegi jamonoy nawet ca la famille di ëppee waaye mbokk loolu amul warul wala am nañu xam ne bakkaar yu bëri day tax nawet du barkeel nawet du ndox muy wàcc waaye nawet mooy la yàlla bar bar barkeel looloo tax ki yàlla jëkk a yónni mooy yonent yàlla Nuux ba mu ko demee bokk na lu mu waxoon xeetam jéggalu leen seen boroom seen boroom boobu kon dana leen jéggal yónni asamaan mu tawal leen taw yu tegaloo midraara laaj leen seen mag ñi yaroo ci kaw gi mbokk taw benn bokku ci ak sa moroom li ñuy tuddee tawu ceebo bokkul ak taw yu wax set bokkul ak taw yu satumbar jamono bu nekk ci nawet bi fu mu toll dafa am taw bu méngoo ak moom heure bu juuyoo rek lépp day daal doon lu yàqu moo tax nuux ne leen jéggulu leen seen boroom kon dana wat ci asamaan mu tawal leen taw yu tegaloo yokk seen alal yokk seen xiiwal loolu it moo tax ba mbokk jamono yi buñ ci tolloo ci nawet ñun ñëpp ku nekk war naa jàpp boppam responsable la ci nawet bi baax ak bañ a baax te may delluwaat tuub ci boromam subhanahu wa taala toroxluwaat ci moom bàyyi lépp loo xam ne jàpp ne ay bàkkaar la loolee du yem ci nawet bi rek waaye xamal ne sa mboolemi mbir yooyu sakku ci àdduna tuub day tax yàlla yombalal la la jafe woon ci yow tuub day tax yàlla yëpp xiiwal yi nekkoon ci yow contraire ba it ay bakkaar noonu la lay indile ay jafe-jafe mbokk ndox mi ngi nii suñu borom yàlla boole ko ci armée yi nii alage jaamam ñam sox ñam jëkk alak ci kaw suuf mooy yonent yàlla lu bañ xeetam bam ni bam ko yónnee ci xeetam xeet bi daal di koy weddi suñu borom yàlla nee na damaa jox ordre asamaan muy sotti ndox moo xam ne muy xëpp la maa in mulhamir même booy déggul arab xam ne mulhamir moom du jàmm gis ngeen sànq ma la wax fi midrora loo xam ne yiw la waaye maa in mulhamir mooy ndox boo xam ne day xëpp ci seen kaw yàlla jox ordre suuf mu génn ndox mi mu dencoon ci biiram faltaqa almaau ala amrin qad qudir yàlla mu ne nii laa boole ñaari ndox ya mu labal leen ba labal montagne ya fa nekkoon gis ngeen ba doom ja naan ay bàyyi damay dem ca montagne bee ca laay mën a mucc ndox ma dem na ba mudd montagne ya mbokk yàlla dañu di def loolu loolu ca la alagoon waa saba ñu nekkoon ca yaman ndox ca la mujj alagi kàccoor bu bon ba di firawna ma nga xam ne mënu woon ne ne man ma yàlla suñu borom ndox la ko booleel mu alak ko moog armée moog ndox mi ngi nii lu yàggul dara booy ci boori deux mille matagul ñaar fukki at suñu borom wan nañu ci benn kawteef bu rëy mooy benn géej gu mu yëngal ci Indonésie loo xam ne manqué ne une minute mu yëkkati benn vague boo xam ne yàlla rek a xam ñaate million de tonnes ci ndox la yëkkati dóor ko ci dëkk bi lu ëpp trois cent mille personnes rey na leen déplacé ci millions yu yàq seeni kër ñu tuxu ci loo xam ne lu néew a néew la mbokk lii mooy ndox bokk ci armée borom bi subhanahu wa taala keroog ba yonente bi alayhi salaam ak sahaaba yi di xeex badr suñu borom yàlla subhanahu wa taala bokk na lu mu leen dimbale mooy wàcce leen taw boo xam ne taw bu yem ci ñoom la ñu daal di cay naan daal di cay sangu daal di cay laab comme na ko suñu borom yàlla di di waxe mbokk lii mooy la nga xam ne muy xiiwulu ndox lii mooy xiiwulu nawet boo xam ne ngan la waay julit loo sàggan sàggan sa digganteeg sa borom ngan la waay bu nawet jotee dellul ci sa borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Aïcha nee na heure bu masaan riddi bi ngelaw yonent bi lu mu daan def dana ko bàyyi daa di ne ay yàlla maa ngi lay ñaan yiwu ngelaw wi ak yiw wi nga ko yónnee di la ñaan nga mosul ma ci ayam ak ay biñ ko yónnee mbokk ngelaw ñam rey bari na la ànd ak ngelaw ci ay zeng ak ay yu kenn xamul lam rey bari na looloo tax da nga naan yàlla maa ngi lay ñaan yiwu ngelaw wi ak yiw yi mu àndal di la ñaan nga mosul ma ci ayam ak ay bi mu àndal gis nañu kenn ci sahaaba yi ba tey di Zayd ibnu Xaalid al-Juhani nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day man nañoo jiite ca Hudaybiya nee nañu fanaane tawlu mu jiitu ñu fajar ba pare daañu ne waaw ndax xam ngeen seen borom lu mu wax bii ñu ne ko ah loolu da yàlla ak yeneen tam ñoo ko xam mu ne su seen borom nee na samay jaam am na ñu xëy gëmm am na ñu xëy weddi ma am naa ñi xëy gëmm mooy ñi nga xam ne bi taw bi wàccee dañ ne alhamdulillah tawlu nañu ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem amma ñi xëy gëm ay biddiw mooy ñu naan ah man kay bu ma gisee biddiw sàngam xamoon naa na dina taw mbokk ab taw ci yàlla rek lay jóge ab taw ci yàlla rek lañ koy war a sante loolu itamit mbokk gis nañu kii nga xam ne nii moom mooy ismiyay Aïcha nee na fu mu masan xiini yeneen ci bi dafay ànd ak tristesse day ànd ak tiis ba baa muy taw ba pare ñu laaj ko bis na ko dañoo gis yow bu xiinee nit ñi kontaan yow bu xiinee nga ànd ak tiis mu ne ay Aïcha xanaa fàttaliku ko leen waa aat ba leen yàlla bëggee alak dafa indi benn xiin bu mag ñu gis ko ne ah xiin bii de dañuy tawal ndekete xiin boobu moo nar a nekk seen alkaange ca mbokk mi ngi noonu taw mën naa indi jàmm taw mën naa indi musiba looloo tax heure boo gisee aw xiin ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu defal la ko la nga xamee ne ni moom mooy jàmm yeneen ci baalee sulaam it daana def heure boo xam ne taw ba commencé na di wàcc mu ne ay yàlla yàlla na ko def taw bu ñuy jëriñ yàlla boo ko def taw bu ñuy lor daanañu bégal it ne képp koo xam ne ni mi ngi taw ñaan ya ngay ñaan yàlla dana koy nangu bokk na ci it sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne ni daanu ko def heure bu taw ba demee bay lor mu ne ay yàlla yàlla nañ ko sotti ci li ñuy wër ca xur ya ak garab ya te bañ koo sotti ci kaw suñu kaw sotti boo xam ne nii dafay doon lu ñuy alak ay yéen mbokku julit rawatina yéen waa Dakar xam leen ne day soxla nañu taw taw boobu ci yàlla dong lay jege sunu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam day gis nañu ne bokkoon na ci ay zikram ba tey heure boo xamee ne daana dégg dëggu gi di yëngu mu daa di ne subhaana alladi yusabbihu rahdu bihamdi wal malaikatu min xiifati mu day mu ne day maa ngi tudd sellug yàlla bi nga xam ne dënnu gi mi ngi sabbaal ngir sant ko malaaka yaa ngi koy sabbaal ngir ragal ko mbokk julit dañoo war a ragal yàlla waaye dañoo war a yaakaar yàlla waaye dañoo war a dellu ci yàlla yonente bi alayhi salatu wasalaam taxaw na fii ma taxaw ci min baram benn kaw kaw dugg si fekk mi ngi xutba mu ne ko ay yému yàlla yónni ñaanal waay sunu tool yi day yépp yàqu na jur gi day nañu amoon lu ñu lu ñu lekk jaaxle nañu ñaanal ñu yàlla anas ibnu malik miy nettali nee na yeneen ci yàlla bi yëkkati ay loxoom daal di ñaan yàlla ay yàlla yàlla nañ ñu may taw taw boo xam ne dang ñu cay xettile anas nee na avant mi pare xutba bi ñoo ngi dégg asamaan bi di dóor ay dënu anas nee na bi ñu jullee ba pare ñun ñëpp ci taw lañu xuus bi ñuy ñibbi suñuy kër mu nekk di taw taw yi di tegaloo di tegaloo ba àjjuma ba dellu siwaat góor ga daal di dellu siwaat ci yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam ci biir xutba bi daa dina ko yu mi yàlla yónni ñaanal yàlla nag léegi mu arrêté ab tawam ndax kat léegi sunu yoon yi dagg na sunu tool yi yépp fees na jur gi mënatuñoo génn yeneen ci bi alayhi salaam yëkkati woon ay loxoom ay yàlla yàlla nañ ñu wëlbatil ndox mi yóbbul ñu ko ca xur ya te yàlla yàlla ñu wàccel lu ñuy jëriñ bañ ñoo lor anas ibn malik ne ne keroog bi ñuy ñibbi ñun ñëpp ci aw naat la ñu nibbee mbokk loolu day wan ne muhammadu rasulullah waaye day wane it yàlla mooy dégg ñaan waaye day wane it yàlla mooy borom asamaan ak suuf day wane ne yàlla mooy borom ndox amul lenn loo xam ne dina ñëw ci ay jaamam wa ma bikum min ni'matin fa min allah lépp loo xam ne nii xéewal la ci yàlla moom dong lay jëlee lay jëlee loolu moo tax tey ñu ngi ñaan yàlla suñu borom li nga xam ne moo ne ñaan leen ma may ma may leen ñu ngi ñaan allahuma rabbana yal nañu yàlla yónnee nawet bu barkeel yal nañu yàlla yónnee ndox moo xam ne nii danañu yokk ca bañ ñoo lor yal nañu yàlla yónnee ndox moo xam ne nii danañu wërsëgal meññent bu dagal doon loo xam ne lu ñuy nandal la nandal suñu jur yal nañu yàlla musul ci lépp lu ñuy lor lépp loo xam ne xéewal la bu mu wàccee yal nañu yàlla déppalee gën cant gu méngoo xéewal googee yal nañu yàlla boole ñu sant ko ci xéewalam yépp allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina azaban nar allahuma asqina ghaythan mughisan ya arhamar rahimin allahuma rabbana asqina allahuma asqina allahuma asqina برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أتم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وانصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين